kaw ndigalul sang bu tedd bi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool Mbacké tànd ak wér ci kilif teefu Serigne Ousmane Sylla xalifa Serigne Mérina Sylla boole yaru ak maandu xew ci jamono di Serigne Sidi Makhtar Sylla Cheikhul Asrar moo yëgal ñëpp ak di woo ñëpp ci bés bu am solo bi muy def at mu nekk màggalu Touba Wakam bu ren bi samedi la fukki fan benn ci weeru février ca Wakam terminus bi édition bi Serigne Muntaxa invité d'honneur yi sëriñ Dan Abdou Lahad sëriñ Moustapha Imam Mbacké sëriñ Cheikh Khadim Fall sëriñ Bassirou Khadim Awa Ba sëriñ Bara Sonyibou sëriñ Galas Kalcom Mbacké Cheikh Abdou Bali Mbacké sëriñ Askia Touré sëriñ Mbacké yu Fay sëriñ Mor Diagne Bundiagne Sidi Ahmed Silla jaraaf Youssou Ndoye monsieur Abdou Aziz maire de Wakam imam Baba Sow Ahmed Saloum Dieng monsieur Djibi Fall directeur Pubcom Omar Babou Junior ak monsieur Fodé Sall di ko yëgal ak di ci woo son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ak soxnaam soxna Marème Sall monsieur Amadou Ba premier ministre monsieur Antoine Félix Diome ministre de l'Intérieur monsieur Abdou Karim ministre du Commerce monsieur Moustapha Ba ministre des Finances et du Budget monsieur Doudou ministre des Transports aériens soxna Fatou ministre de Serigne Niang sous-préfet des Almadies marraine d'honneur yi mu ne soxna maam Faty Mbacké soxna Astukunta soxna maam Ayta Sène Laye soxna Aram Ndiaye responsable politique soxna Aïssatou Sabara Ansar responsable politique soxna Kaltom Si soxna Fatou Kiné Ndiaye soxna Soda Badiane soxna Seynabou Thiam soxna Ngoy Fall ak soxna maam Issa Mbacké dinañu defal hommage bu mag ci bés ba Serigne Khalil Mbacké Falilou Serigne Abdourahmane Mbacké Serigne Makhtar Sidi Albouri Serigne Atou Diagne Serigne la soxna kunta màggalu Touba Wakam ak Serigne Sidi Makhtar Sylla Cheikhul Asrar samedi 11 février 2023 à Wakam terminus 43 képp ku yittewoo ay leeral yu gën yaatu ci bés bu am solo bi mën ngaa woote ci 77 686 41 41 77